Euh, jërëjëf a sama xarit sama doom nday yow mi nga xamante ni euh, li mu gën a neex ci interview yi ma mës a defal mais tey ki ma interview mooy Asia sama xarit moo ma ci gën a kontaan loo waaye bi may njëkk a def boo nuyu sama rak sama xarit Pam Moussa Diop borom PMC xam nga ko lendemain tabaski nag day bis boo xamante ni dafa am ku nu seqaloon teraanga mu lebal loo xamante ni mënuñu ko fay ñuy def lu nu am rek dawal ci bii bokk ci li nga xam moom la ñuy dawal ci bis boobu muy Seex Seydil Hadji Malick borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junj la Mam Maodo daf noo lebal man ak Pam Moussa nga xamante ni ñooy def lendemain tabaski tuddee ko journée bi moom dong képp rek keneen bokku ci li ko waral mooy ñun dañoo amoon ay maam yoo xam ay ceddo lañ man mi amoon naa maam ju ñuy wax lat yaxaraak borom boy lokki amoon naa maam ju ñuy wax sam xaali ndumbaan mi ci naana gi ci looro si daaj maa jël kenn ki def ko kàng fóore jël ki ci des def ko xaafis alquran waa kooku mën naa ko fay Pam Moussa Diop am na maam ju ñuy wax aali Bata Mbuub ku waay di dégg kuy ci àddina mooy maamam moo jur ndayam Selli Mbuub Pape Diop baayam def lu ne fii ci dëkk bi Sidaaj Mari lebal leen loo xamante nii mënuñu koo fay mu woo ma ma woo ko ñu waxtaan ñu ni comme mam Maodo lebal nañ loo xam mënuñu koo fay non nañu ànd daje tudde ko bis boo xam moom rek moo ko moom muy kañ lendemain tabaski di ci woon ak képp koo xamante nii yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah képp kuy jullit ñu ngi lay woo ci lendemain tabaski fan lañ koy defee ñu ngi koy defee fi nga xamante ni mooy ci terrain basket bi école 1 fofu lañ koy défé Why? li lay xamal ni Mamadou ay bisam dafa spécial mbir mi ñu ci parce que liko waral moy ñi ñepp di wër ñoy ñi défal bis bi moy Abdou Aziz Mbaye bu Seydil Hadji malik bu Seydil Hadji Abdou Aziz bu Cheikh Seydi Aboubacar si mo koy def ak kan dout kenn bu Seydil Hadji malik bu Cheikh Seydi si bu Seydil Hadji Abdou Aziz mo koy def wayé ñan ñoy waxtaan waxtaane nak moy ñaari star yi wa Sénégal di wër moy kan ki nga xamanteni moy mooy Ba mi nga xam mo defon qj daw jek toj rew mi ndax Alaaji malik li def ak li jëf ak kan ki nga xamanteni moy Ahmed sar bi nga xam ren mo def QG àdduna bépp di ko wër ñaar ñii ñooñ koy defal Pape Malick mbay Cheikh Tidiane Sam Mboup Sidi Mbaye Ngagne ñooñu ñooy écrasé jour boobu nga xamante ne mooy jour Sidi Hadj Malick boobu euh, El Hadj bëgg nañ xam ban heure lay commencé. jour ba nag dañu bëgg ku julli timis ba pare rek nga jubal si fa teew fa parce que dañuy fanaanee waxtaanee El Hadj spirituel alaaji Malick mi nga xam ne bi muy ñëw Tivaouane 1894 juróomi quartier la fi fekkoon jaalo ngi jaan kuli ngi jaan koñ njàkk foo ñu juróomi quartier yi la fekk côté bu ne mu fekk fa benn sëriñ waxtaan ak moom serigne ndout mu ngi tudon modou mbacke mo waxtaan ak mom indiko serigne kulli mu ngi tudon tamsir ma njeme mbay mo waxtaan ak mom indiko serigne diallo mu ngi tudon tamsir bubu si mu waxtaan ak mom indiko serigne foni mu ngi tudon euh tierno buso serigne ko ndiak tudon ndol ay saba muy juromi serigne yo xam bi sidane malik ñewé sax ci commencement bi dañoo lankone waye biñu gisé mam modou ak yalla ji mam modou ak yar bi mam modou ak kat ba dafa waxone ko gis mu sol wex tal set witch touro parfum bu neex sol mbaxane mu wex yor kurus bu ko laaj talibé sidane malik dafa wax ni boo gisee ku set bu ko laaj foo bokk taal si laaj maale kon bis boobu Pape musaa di jaay si alaaj nga di ñëw bis boobu daal li ñuy laaj mooy képp kuy jigéen ku ci sol yëre bu màgget micro bi la ñuy taxaw ni kee yëre bi yëre bu màgget la yëre bu bees lañ fa soxla dañuy wax ni képp ku mën a musóoru musóoru 3 mètres bu fa ñëw ci jigéen ñi góor ñi jesneer la ñu commandé wala bassin bu dee weex moo nu gënal beneen couleur bu mu doon baax na ndax maam Maodo kat la ñuy sargal te maam Maodo bis boobu waa àddina yëpp war nañoo xam ni bis bi bisu Seydi Hadj Malick. si waaye El Hadj est dana continuer wala fii rek la war fas yéene yam. bu soobee yàlla ak yonent bi Seydi Hadj mbiram bëri mbartal la teg loxo mu dem ñàkk teg loxo mu dem moo tax bii mooy première édition bi mais dootul taxaw nag ilaa yow mi diin waaye maa ngi